Bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda net asalaamaaleykum mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar yi yéen ñi taamul ak 90 international bu ngeen taaxirloo tuuti rek ñu jukki leen di ci gën a bokk na ci euh, mbóot yaa ngi gën a ci dossier wu Satar tuumalante ci ay millions ak porté woon te plainte moom moo ca xew Amadou Thiata ma jiite woon union régionale synthèse ci boobule jamono te ñu tuumal ko moom seetal na boppam ba mu set wecc ba noppi daal dee tilimal mandataire ba di Sidibé daa ngeen ci dégg joxuñu leen gëdd ba ñuy yellool ña leen doon artoog di leen dànkaafu ca ba ñuy maye ndog ñoom waa ànd defar suñu réew daa leen dégg ci biir xabaar yi bésu korité lu tolloo ko ñeenti daara ca commune woon daañu euh, solu ba rafet na ñëpp waaye itam lekk ak gox yi di Anta Dialle daa ci dégg Cheikh Tidiane Diagne niñ koy defee alxamis bu jot daañu leen demal ca tribunal grande instance bu Kaolack andi leen leen ci ay dossier ñu fa jotaate ni dan ci ànd ak Bara Diop ci bitim réew daanu fa fekk Cheikh Tidiane sar tàggat yaram daan ci ànd Serigne Moussa Kane li yëgle kaay xëy ji mbiru El Hadji Seydina Omar Cissé lay don bu ni lépp yembe mbokk yi xibaar yi di buur ñu ñandalante wala tàlloo lu ñu dikk ak yéen ci atel gi xam fatigué gannaaw bàkk bi lay doon Le journal Ndeye Khady Sadio daal leen ak jàmm mbokk yi yéen al Alfayda la référence internationale ngir xibaar yu leer te wóor kaddu gi di ko fii ci meuble Cheikh Imam Assane Cissé studio Aly Momar Lo ko du sekk madame Keneme mu jon ak wan ci wàllu xayale gi ba dégg-dégg bi mën di leen ko waxee noonu lañ koy doree coowal dossier wu Satar ca kenn ci liggéeykat ya sulli woon ko ca bañuy amal ndajeek premier mais ngir rek doon fa sàkku ay leeral tolloogul nag ci fay waajagu ko sax nag ndax Amadou Thiata Fall man ca tuumaaloon moom génn na wedd tuuma yañu gàllu ci ndoddam ba mu set wecc Cheikh Ababacar Dieng. cooli woon ca benn fan ci weeru mai te ñu tuddoon ci benn avocat benn mandataire ak benn intermédiaire mu ngay wëy Amadou Thiata Fall mi ci jaabaa jongi lu bari nee mu ngi doon xaar bés bi. dama sant yàlla sax bi problème boobu ñëwee ci man moo wax ci rajo bi xamul sax montant bi parce que montant bi cinquante la mandataire bi jot mandataire bi deux la njëkk a jot bi ñu waaree jox suukar bi xale daf ne moom il faut mu jël fa deux ñu ñëw bay munoo lekk deux millions yi bàyyi ma munoo lekk bàyyi syndicat bi dégg nga ma interpellé ko coowar xaalis bu Satar Fay ay liggéeykatam yu ko yóbbu woon ci tribunal ci jooju jamono nag Amadou Cotofal moo jiite woon union régionalu CNTS nee na tey jii liggéeykat yi dañ ko tuumaal ne gis nañ bi xaalis bi génnee muy yóbbu ci ay famille yoo xam ne seeni borom dañoo génn àdduna taxal daj ne fa leen dóor ci yëf yi na ko ba mu set nee na xaalis ba mu doon séddale dañ koo yónni woon ah ndànk am na loo xam ne effectivement mënul def dossier bi ànd ak nit ñi boobu ba tey ba dëgg ni léegi d'accord na ne pourcentage bi li nga xam ne syndicat bi moo mandataire bi amul problème mais moom li nga xam ne moo moom ci wàllam mu a ma dama lay jox nga joxal ma diw joxal ma ma bourse de travail joxal ma famille ñi nga xam ne seen responsable ñoo doon responsable bi départ dossier bi te gaañ jox leen loolu la ma wax ngóor si ñuy wax la dossier ko teg ñu ne moo jël lu ëpp moo triyaan liggéeykat yi jaaree na fi sax ku koy wax mbiri dossier satar mu dagg la sànni ni ñam wu des juróom fukki million mu ngi ci ndoddu Sidibé juróom fukki million la jot parce que deux la njëkk a jot jox ko chèque ko million la jot lii it moo tax coow yi fayagut ndax moom mi fi jiitoon interpellative mu tontu ma fu mu gisee ne man jël naa xaalis waaw kooku c'est un autre dossier beneen dossier la parce que yónnee naa fa nit wax ak moom ci njëkk bañ na ma am naa yoon bu ma mën a jaar naa jaar ak moom foofu tout cas danaa am ak moom fu mu war a dem moom sama xaalis moom naa ci jot leneen liggéeykat ñaxtu hit moo di lu tax dossier bi la ñu ko réglé ci permanence su Gajaga bi mu tuddee Khalifa Sall ci Kaolack Amadou Thiata Fall ne dañ leen a aay woon ci dossier Satar bi moo tax ñoom ñu wutul si fii Thiaxa Babacar Dieng dañuy desandi ci boobule dossier ak moom Amadou Thiata gannaaw ba mu weddee tuuma ya ñu gàll ci ndoddam ba noppi andi na ne travailleurs nañu problème ak direction Satar dañoo ñëw pour Sotrac ils étaient au moins cinq wax ne ñoom dañu am problème ak seen direction ma ne amul problème naa fa wàcc ma dem discuter ak direction bi wax ak ñoom direction woon na ñoom dañu def mouvement travailleur pour ñëpp ma toog un mois deux mois trois mois defuñ dara ñu door a def requête bi pour attaquer leen à l' du travail man secrétaire union régionale ma démarré dossier bi dem ñetti séance ñu def jiwuñu léegi ñu ne phase contentieux yi la ñu ubbi phase contentieux yi bu ñu ko ubbi nag man en tant que secrétaire union régionale man ma def procuration léegi sama chargé revendication en même temps mooy mandataire union régionale defal ko procuration en tant que mandataire mu continuer dossier ñu gagné première instance deuxième instance cour d'appel ñu dem ñu gagné parce que la dossier bi ci la avocat bi dugg ci dossier cour de cassation yépp moo ko def ba yàlla def léegi am un acompte pour travailler yi léegi am avocat bi ooma dama kat jot nañ un compte pour travailler yi léegi qu'est-ce qu'il faut faire dama bëggoon ngay waxtaan ak délégué bi ak mandataire bi ak délégué yi ak effectivement le secrétaire général actuel de la CNTS muy Abdou Ndiaye ma ko d'accord ma woo Sidibé mu ñëw ma woo mandataire bi mu ñëw ma woo secrétaire général bi mu ñëw bi mu ñëwee discuter ba d'accord ne léegi nañ rencontrer avocat bi jàpp bés ma woo avocat bi ne ko bés sangam ni nga ñëw avocat bi ñëw na discuter bi ñëwee travailler nañu 20 lañ am droit wax loolu loi bi wax mais nun coono gi ngeen coono ak point de presse yi ñu def yëpp gis leen si ci point de presse point de presse yëpp maa ko jiite maa ko travailleur réunion travailleur bourse travail maa ko def ba benn bés ñu dem fa mu o secrétaire général ne ko ñëw bu mu fa réunion parce que dañu war a indi xaalis boo xam ne dañu ko war a joxe te man yëguma ko ñu tëj bourse ñu dem ñu def ko ci buntu bourse bi pour wan nit ñi dañoo tëj buntu bi Amadou euh, dañoo comprendre dañoo war a comprendre affaire bi naka la demee ñu ci tudd tamit suñ avocat bi te suñ avocat bi boo xoolee dossier bi dafa départ 2006 ba 2009 moom mu jog ci jot bind nañ liste bi 215 personnes lañ bind ci liste bi ba ñuy départ ci dossier bi mi nga xam ne ne ñoo départ Satar avocat bi ko njëkk a yor dafa plainte contre cœur de ville avocat Samba Amity bi ñu yore nii ñëw ne dossier bi su ngeen porté plainte contre cœur de ville da ngeen di daanu parce que cœur de ville du entreprise bi Satar moo nekk entreprise bi mu doxal mu dem ñoom biñ commencé ba am problème kër de ville war a dem inspection de travail pour def suñ plainte déposé ko au niveau du tribunal xeex ak wax sataar amul benn ouvrier buñ contacté woon ouvrier yëpp lañ contacté mais ñoom ñi nga xam ne syndicat ñu ñoom dañoo bokkoon ci défaillant yi parce que dañoo àndoon ak waa sataar yi ne ñun mënuñu gagné sataar ñoom dañuy ànd ak sataar parce que sataar digg na leen liggéey ëllëg mais ñun ñoo dem ñoo retourné ñun deux cent quinze personnes yi xeex ak sataar pendant quinze ans gagné dossier bi amul kenn koo xam ne bokk na ci dossier bi sa tur avisé ci dossier bi ci deux cent quinze personnes yi te jotuloo sa xaalis kon ñuy wax nag ñuy wax kenn syndiqué wu ci amul kenn koo xam ne joxe nga sa dërëm syndiqué ci liste boobu wala boo syndiqué ñun sa tur nekkul ci dossier bi damay laajte naan naka la nit koo xam ne ne syndiqué bokk ci dossier tribunal juge sa tur xaalis génn nga fayee ko moom loolu daf ma koo jaaxal. mais kon liste bi ñu ci bokk ñëpp deux cent quinze personnes ko ci anam ba nga ko na ñoo xam ne nii kaw la gii la ñëw ci permanence PS ñu fay leen seen xaalis am na ñoo xam ne Dakar lañ dem ñu fay leen seen xaalis bokk te fayekuloo amul. ku nekk am nga ñaata. ouvrier un million cent soixante cinq mille manœuvre bu nekk am nga huit li may wax képp koo xam ne yaa ngi ci dossier bi yaa ngi may dégg xam ne li may wax nii c'est vrai bu fekkee ne li may wax ne amul ñoom ñi bokk ci dossier bi nañ wax ne Samba Thiam li wax nekkul. mais ñuy wax ñëpp dañ ci seen tur nekku ci liste. képp koo xam ne yaa ngi jooytu jamono nii bokkoo ci liste bi sa tur nekku ci liste bi da nekkoon défiant syndiculo ngay bokk loolu fàttali leen ne Sidibé moomee ñu cay tudd moom moo doonoon mandataire ba dañuy bàyyi boobu les dossiers dem seeti beneen coow ca diwaanu Vélingara foofee nag gannaaw ba fa gendarmerie tegee loxo benn boroom dëkk di chef de village ay naataangoom nag euh, soloon nañ ko robu avocat fàttali leen nag na mbir bi nag mu ngi soxal mbiru njaayum euh, drogue ña ngay sàkku nag ñu bàyyi ko ci ni mu gën a gaawee El Hadji Aline Badara Balde moom moo jiite kuréel Galen Takke mi ngi ci micro Babacar Diouf. suñu naataango chef de village euh, de village de Sari maire Mali dafa amoon jafe-jafe ak nguur gi jafe-jafe ak justice parce que dañu ko tuumaan jaaykatu drogue la ñu jàpp ko fii ñu yóbbu ko ba Kolda ci kanam procure mais témoignage yi nga xam ne nit ñi def nañu ko vraiment loolu woon na kii innocent la xamul saa drogue bi mus ko man dama defoon ne par exemple bu fekkente nit yaa ngi jaay dara li ngay jaay moo lay jaay donc bu fekkente dañu jàppoon keneen ki nga xam ne ci sori la ko jënd bu boobaa mun nañ ñu ne ko yow yow jaaykatu drogue nga nekkul sax ci biir kër gi ci ginnaaw kër gi la la ñu arrêté ko ñu traumatiser ko vraiment yooyu yëpp am na ay dëkkandoor ñi nga xam ne bugguñ mu nekk chef de village ñun nag association départementale de chef de village chef de village bu mu amee problème bu fekkente dañu ko tooñ dañu taxaw vraiment woote partout gisante ak autorité yëpp de chef préfet de sous-préfet de ci maire ainsi de suite vraiment on va tout faire et même rencontrer le procureur Mangi maa le maire de Sarik puisque taxaw na taxaw bu Baha Baha. baax on baax a association départementale chef de village dañuy fas yéene dem gisi sori Kolda léegi il faut nga abal ñu auto mu ne sama disposition de defal naa carburant mi ngi noonu Vélingara googe la ñu jóge ko daal di dellusiwaat fii ci eh, Kaolack ñëw rek ci seen chronique judiciaire nuñ koy defee rek alxamis bu jot dem ca tribunal grande instance bu Kaolack ca audience la délit ba ñu fa doon amal niki eh, démb mbiru njaayum garab gu dëppoowul ak yoon borom bitig bañ ca tegoon loxo keroog ñaar fukki fan ak juróom-benn ca Kaffrine fekk ko ak téeméeri kilogramme garab moom nag àtte nañu ko niki eh, démb waaye nag ëllëgam dina ko xam àllarba jële di ñëw fukki fan ak juróom ci weer wi di ñëw. muy ne ci weer wi ñu ne muy bësu délibéré bi yaatal gi dañ ci and ak soxna Ndeye Fatou Cissé. da ca doon jéem dugg mu ne ndax ca yoonam bu njëkk bu mu naroon a yóbbu ay garab foofee ca Touba la ko waa brigade di stupéfiant bu Kaffrine teg loxo tuuma yenu gàlloon ca ndoddam nag te taxoon kon mu taxaw démb ca kanamu tribunal des flagrants délits bu TGI bu Kaolack da koo nangu ci lu mu amul benn jafe-jafe ndax yaa def am déet li ñu lay toppee di la ko juge ba doon laaj ca njëlbeenu procès ba prévenu bi na waaw la mu doon toftal na nag ci ay kàddoom diirub àtte ba mooy ne xamul woon li mu doon def yoon da koy tere lañu ko doon toppee sax kon moom prévenu bi nga xam ni boutique la yor te ca la muy jaay mu ne bokk na ci ataay ak suukar mooy ne dañu koo jàppeek ay garab yoo xam ne la mu ca jublu woon mooy jaay ko ci anam gu dëppoowut ak yoon te ci noonu da doon def liggéeyu pharmacien ci lu mu amul aussi benn sañ-sañ rax si dolli na moom prévenu bi daa romb poste douane te déclaré wul marchandise tegee loxo nak gannaaw bo wa brigade di stupéfiant fekkee mu yap ci ab auto bu ko narona a kon ci Touba te tollu ci téeméeri kilogramme ba ko juge bi laaje njëgg dane 300000 la ko ma ko xayma ci juroom ben million di lako atté kat bu do leeral ci laaje ko tontu ya ba ba ko tribunal bi laaje moom prévenu bi garab yi nu ko jappé lan lay fajj dane pour yaram buy métti la ak appétit donte ne sax amon na jafé jafé gu reuy ngir expliquer li ni mel fan la ko tek ñaari at yo xamne nak juroom ben wer yalla ci teud di le procureur sak won ni dan ci kaw prévenu bi nga xamni kon boutique la ma nga am weri at gannaaw bamu waxe modefa ci requisitoire am ni ko keesi ki sak newul ci na mo def li am lan tek yoon mo def di kaddu ka avocat ba ko la yalla waye nak la mu ci yok moy ni client wam da xamul won te domi gambi bi ka jay garab yi da ko nax borom keur la yore njaboot moom mi tax nag ba maître Adama Ndiaye doon na sàkku ci tribunal bi ak njéggal jëmale ci kooki hmm. àllarba ji fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mee nag ca la tribunal ni ca la cay joxe dogalam démb nag ci audience boobee attekat yi càmbar nañu fa ñaar fukki dossier ak juróom-ñett yoo xam ne ña nga ñi loon ñaar fukki nit ak juróom-ñaar gannaaw ay tuuma jëm ci mbir yu si mel nii accident yu jur bàkkan yu rot nekk ci tali bi di dawal ci anam goo xam ne nit mën na caa jaaree faatu mbaa sax mu ci lago girum dëmam wala gañu gañu yu metti lool ñu nan ko mise en danger de la vie d'autrui waye tamit lolé ñu nan abus de confiance sàcc na bu jur gi mbirum sine bar diggante toox egg sax ba ci jaay ba di may ay nit xatal ak lolé ñu nan violence à ascendant xam ni doom moo koy tekk waajuram sant la gërëm la soxna Ndeye Fatou Cissé desandi ci audience ba ba tey foofee nag ab chauffeur yaatam tollu ci fanwer moom nag la ñu ko doon toppee rek moom mooy dawal ci kaw tëli bi ci Matay ba ko takk der ya àtte nag dafa bañ a arrêté nag dafa bañ a taxaw bañ ko mujjee jàpp nak la mu def mooy rek doon leen jéem a ger yoon nag dëggal na ni lañ koy tuumaal moom moo ko def tribunal nag jibal na ci kawam benn atu kaso ak ñaari at yoo xam ne rek dina ko toog te du ko dawal yile mbir ak yeneen i mbir daañu leen ko toppal ci mbir ndimbalal soxna Ndeye Fatou si seen biir chronique judiciaire noonu la ñuy jaaree dem ca ISRA foofu nag ab lakk gu ki démb la ko sooxe nag la ñu ko wax ne moo ko waral nag bokk na ci benn tool ba ñu ruuj ba noppi taal ko ba dem bàyyi ko ñu jàpp ne nag moo leen jural boobule jafe-jafe yàqu-yàqu yu bëri am na fa soxna sa ko fekkee woon nag ma nga cay jokkoo ak Cheikh Tidiane Diagne ñu teewlu leen. ah mu moom moo tax moo moo ko taal. suñu fànn boo doon ruuj ci toolam. da koo taal yi taxu koo jéggi dayo. Ah, ginaari suñu laal yi suñu léegi suñu bay yi fa yàqu daal waaw loolu yàqu daal su ma fokki dégg waaye ginaari bi yëpp ak dugub bi ñaata néeg la bu ci léegi dañoo lakk ak gàtt fos ba saa ko ñëwul sa waxoon nañu waa ñëwul xar lañ leen ko waawee ñëwul suñu bay yi daal ak yére yi ak suñu ba ñu ci léegi dugub ak dund gi lakk mbaadu moom ngeen fas yéene woon a wooree ba woor gi jeex jeex. waaw waaw wala des la woon. dugub beeg ceeb bi amul lu ci des. li ko lakk daal ku taal gaa yi dina këram di dina këram. yéen ko de waaw da këram tool daal di wut taal dem bokk bi. waaw dina la ko nag. suñu ko yenn nag dañoo gis bopp bi dimbale ñu rek. gën a kër la kay moo lakk yëpp si léegi lakk yëpp ak dund bi. ISRA te yanaan. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM

ay xarañteef yu leen mën a permettre ñu mën a am financement climat tey jii financement climat Sénégal am na ci benn euh, kuréel bu mu teg muy autorité nationale désignée nga xam ne moom moo war a saytu bépp projet bu war a ci fond vert climat ñooñu lañ woowoon tey ñu mën partager ñu mën former waxal nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy les représentants ou bien les élus locaux ñu mën a am les ressources nécessaires mën a monter des dossiers. soppite jaww jooju ànd parfois ak ay yàqu-yàqu yu métti métti mu nekk nag loo xam ne am na ay njeexital bu ñu sukkandikoo ci seen consultant bi doon koo xam ne xam-xamam daa màcc lool wàllu aalam bu baax a baax ñu koy wax professeur Mamadou Dime. waa risque yi bëri na te donc loolu dafa nekk loo xam ne foog état bi war ci anticiper bu baax a baax pour jéem a xool li nga xam ne moom la war a def pour jéem a faagagal risque yooyu wala bu ñëwee tamit ñu xool loo xam ne dinañ ko ci mën a def te a gën a yokk la parce niveau géej gi mi ngi commencé yéeg béykoor yi dina gën di faral di am bënd mi day gën di yokk tamit daje bu nu mel ñu ko doon amalee ci gornaas bu Kaolack ci teewaayu yenn ci njiitalu gox yeeg goxaat yi naka noonu tamit partenaires yi ba ci organisation yi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu développement C'est Cheikh Tidiane Sarr coordination démocratique des enseignants formateurs du Sénégal Nous nag Nous nañu tout premier mai bi ci anam Nous avons fait rek muy dugg ci ba ngir avons rek ñi a Nous fait. dem nañu ca Nous ak fait. Goudomp ngir xam Nous dem ba mooy coordonnateur avons euh, fait. coordination démocratique des enseignants formateurs du Sénégal dañoo syndicat proximité dañoo syndicat Nous dañoo nekk syndicat marquage à la culotte. Hmm? suñuy élément fu ñu nekk dañ ñuy gis seen biir. on de proximité. léegi nag bu ñu nekkee de proximité dañuy mën a xam problème yi xew foofu dañuy mën a rencontrer enseignants yi dañuy mën a xam seen problème jël ko mais dañu doon dem guddi ndaxte guddi yi lañ feetoo suñu premier mai proximité bi loolu la gën a feeñe dañoo bàyyi Dakar ak bureau yu sedd yi ak lépp. ne nañ dem Goudiri 700 km, ca tangay ba fekki fa suñu jambar bu tuddu Ibrahima Faye mu té section Goudiri bu am fa doole ba syndicat Goudiri Ibrahima Faye rek fa ne il fallait ñu dem honorer ko def premier mai et il fallait ñu def une première fois Goudiri premier mai ben syndicat ko fa donc c'était une première pour Ibrahima Faye c'était première fois ñu dem guddi yi jox mémorandum préfet loo tax ñu def déplacement bi ñuy dem nag des amis yu nekk Goudomp nee nañ ñu Goudomp et environ bari na ay pro jaar leen fi ñetti fan mbaa ñeent ngeen dugg biñ fa jaaree ñetti fan ak ñeent lim ñu waxoon sax gis nañ lu ko raw gis nañ ñoo xam ne ñu ngi juddu avant 1970 amaguñu intégration fonction publique jàngale nañ vingt cinq ans avancé guñu benn yotaa jàngale nañ vingt cinq ans ñu ngi kalewu ci benn commission paritaire deux quarts yem fa dematuñu fenn depuis 2010 ñii depuis 2009 donc ñi ñu yónni woon Goudomp liñu ñu ñu xooli ko gis nañ sax ba gis lu kawe suñ lool donc ñoñu ak velengara ak boukul bi ak ñi nga xam dañoo neubatu biir Sénégal sori enclave dem Dakar yombul ils ont d'énormes problèmes dafa melni syndicat nekku fa buy régler ay problèmes motax tax ñu ne ñun yegg si nañ pour régler problème yooyu euh, CDEPS CDEPS amul secret chaque jour fu ñu jaar nit ñi dañuy wax quel est secret CDEPS CDEPS amul secret secret moy engagement secret am dévouement secret moy abnégation secret moy servir les enseignants xoolu ci fi nga bok xoolu ci fe nga bok ba tey ci mbiru njang ak njangale gannaaw bi nguurub sunu gal xam leene ne dina recruter lu toll ak juróomi junney ñay jàngale lakum rew mi ñoom it samp nañu ab laaj di laaj rek ana fan la wara fété ñom ci bobu le recrutement ah, Magamu geey moo yoré sen ñu tewlu ko momitam dañu seetlu depuis mën nañu wax ni 1999 ba léegi ñu ngi ci alphabétisation di xeex yor ay CAF classe alphabétisation fonctionnelle yor ay ECB yor ay OCB ay organisation communautaire de base lu nekk ñu yor ko ci alphabétisation tey bu ñu ñëwee ba yegg si fii ñu def euh, benn examen ñu mën ko tuddee nat bu ñuy wax VAE validation des acquis de l'expérience ba am attestation bi ñu toogaat jàngataat suñu bopp ñu mën a définir diplôme boobu mu nekk diplôme bi plafonné ci wàllu alphabétisation mooy validation des acquis de l'expérience ñu méngale ko ak euh, CAP suñu mébét mooy dégg nañu ni état bi digg na lu mat juróomi junniy poste ci wàllu jàngale ñu bëgg ci laaj fi nga xamante ne bi nii fa la langue nationale yi féete fi nga xamante ne bi nii fi la acteurs yi doon yëngu ci wàllu alphabétisation féete bu ñu laaj lool nag li ñu bëgg a leerlu mooy dégg nañu ñu tudd ci daara yi gis nañu it ni ñu ci dooleele njàngum nasaraan mi tey seetlu bi ñu ci def ak jàngal bi ñu ci def même boo demee ci classe alphabétisation yi way yombalkat ya fay yombal curriculum la ñuy jàngalee mooy document bi nga xamante ne bi nii moom bi jàngale ci école nasaraan bi mom lay te gis nañu ni ak résultat yi facilitateur ak def dañu maîtriser bu curriculum contexte consigne di def résultats yu ni dañ gis bi ci te ci langue boppam ndax nit ki booy wax ak moom wala ngay jëflante ak moom war langue bi mu dégg e, validation des de l'expérience amoon nañu sans lauréats ñoo examen au niveau national ñetti région yooyu lañ defoon phase test ñu bëgg valider leen ñu intégrer leen ci fonction publique. dañuy waxtaanee ministre bañu denk walu nap gi mom nak ci tournéem ba muy amal ci bir réew mi ma nga woon ca Medina Gounass dem seete rek mini marché bañu fa samp ba mu àggee nag jafé jafe ya mu gis ne galankor wala gàllankoor na ci walu courant dal na ci xel askan wi mom Aliou Ndoye ñu teewlu ko li ñu fi indi ci tournel nga xam ne dañuy wër Sénégal pare nañ suñu tournée ci li ñu zone centre donc dëkk yi nga xam ne ñoo def centre Sénégal léegi ñu ngi dugg ci du Sénégal ñu tàmbale woon ko nag fii ci Madina Gounass parce que ci mini marché yi nga xam ne ministère bi installé na ko ak coopération coréenne ñett la ci Sénégal fii la Madina Gounass moom la ñu njëkk installé pare nañ ci semaine yi passé bu Linguère ak bu Matam moo jaaroon fi nag pour xool ndax mu ngi dox bu baax wala est-ce que am na ay gàllankoor ñaari jafe-jafe moo ci am mooy groupe bi dana fonctionné loo centre kilomètre bi waaye li muy lakk ci courant dafa bëri kon dana am problème de rentabilité électricité bi amuloon waaye ñëw na te ni mu ñëwee doole bi dayul installation bi laaj na doole bu ko ëpp te loolu Sénélec bi fi ne dafa wax mairie bi il faut ñu laaj ko ñu wax grand compte ci Sénélec kooku beneen donc démarche la ndox mi itam débit bi dafa xaw a faible donc loolu malgré que am na ñaari réservoir yu am solo compresseur bu yëgal ndox mi waaye débit bi faible na encore donc loolu mooy jafe-jafe yi ñu ma fi wax ci wàllu complexe boobu sinon complexe rek baa ngi dox bi mu mujj dox moo juumul ci daaka bi loon moo doxal nañ ko pour mu jox nit ñi gërëm kon loolu lañ ci sant yàlla. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point ñu ñëw ak yéen ci mbiru solidarité di jàppaleenteek ak dimbalante junjoon nañ leen ko ci bopp xibaar yi mi ngi noonu ñeel kaarange ndaw ñi soxna si di Anta Dialy jiite kuréel ga takke bàjjenu gox yi moom nag amal na ni ki démb ak bëccëg boo xam ne benn taalibe du ca yelwaan duppee ko rek du journée sans mendicité boole koo ko jàppalante ñoom ci wàllu ko solu dundu waaye itam bokk na ci bésu korité dinañ solo ba ñu rafet ñoom taalibe yi Cheikh Tidiane Diagne benn ay bés suñu diggante korité kenn ku nekk nag yaa ngi bàyyi xel sa njaboot waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di nu gox yi ñoom taalibe yi ci boppam la ñu may gëtt soxna Anta Jali jël ñeenti daara yoo xamante ne ñu ngi ci biir commune bu kawoon ngir taalibe yi daal di tuwaaletu ñoom tamit ci bésub korité gi ñu dégmal du taalibe la juri korité dama war a sol lu tilim samay mbokk xale yi may tasal ci mbedd bi sol lu set naam bu ñu amul tamit ay yére qualité ñu jox leen ay yére yi nga xamante ni yu bees la ndaxte duñu sentir ne mu am foofu discrimination tuuti ma ngi remercier app bi bu baax ndax bokk na ci ki njëkk a def geste di remercier aussi Enda Jeunesse Action ñoom tamit. moom njiitu kuréel gi takkee bàjjenu gox yi nag ameloon bëccëgu taxawu taalibe yi niki démb ca commune bu kawoon dal di journée sans mendicité maanaam bëccëg goo xamante ne dañuy tànn ay daara yoo xamante ne du ñu génn benn yoon daal di yalwaan yi tax na mu prox ndoolu daal di ci projet modernisation des daara Anta li lii moo ci xalaatam. daara yi tey jii doon jot lii daara nasaraan yi di jot yelwaan gi bu doxul tamit dina wàññeeku bu baax bu ñu jàppoon foofu parents yi jàpp fii dafa doon xeex boo xamante ni dama ciy invité ñëpp ndax mu doon loo xamante ni dinañ gën a gis ay résultat wu daara yi incha allah jafe-jafe yi nga xamante ni nag ndongo yi ñu ngi koy jànkuwanteel moom mi nga xamante ni da leen a may gët lool nee na dakul benn yoon xale yi ñu ngi doon ay victime ci mbedd mi léegi rek benn xale mu ngi fii di fanaan si biti fanaan si biti bi lu nekk mun na ko ci dal xale bi dafa daw xeetu violence boo gis nag mu ngi ci mbedd mi ba pare télé bi mu ngi fi xale yi sa yaram dafay daw subateel damay xëy génn ànd maak ñoom bu ma leen joxee ñu ndékki ba pare damay taxaw fii maak ñoom di leen jéem a am ay accident. présidente association bàjjenu gox yi nekk ci diwaanu Kaolack daal dinay jébal tamit taalibe yi li nga xamante ne moom moo di ay ceeb diwlin ndogu yére eau de javel ak jumtuwaay yi ñeel mbas mi ngir ñu raxasu daal di koy maytu jox la jar Cheikh Tidiane Diagne foofee ke won la ñuy desandi ben ci serigne dara jotee ci boblé euh, ndimbal nak sakku na ci ñëpp ngir ñu roy ci jëfu euh, soxna Anta Jali bobé way itam wo ñëpp rek ngir ñu ak talibé yi baña baña joy a seen yaay woné ci itam ñi nga xamné ñoy l'autorité yi ak suñu Sénégal serigne dara ba Cissé ma ngay tontu laaju Cheikh Tidiane Diagne. dafa nek nit ko xamné ni pour wuñ koy woyé deug yalla wuyu ko lool te moy bàjjan ndax organisation bobu sax ci liñ taxaw ñun mbooloom serigne dara yi di wax né bu fekkone tay kër bu nekk dafa jël en charge benn xale di ko tubbal añ di ko tubbal reer di ko jox ndékkee mu fay sangoo yaakaar naa benn taalibi doora doxati si mbedd parce que ñun ñuy jàngale duhut ni ñun ñoo wax xale ñu dem yelwaani wante ñun dañuy am suñu xam-xam bëgg koy joxe mais amuñ xaalis boo xam ne tey mën nañ koy dundalee xale yi comme xam-xam lañ am nag dañuy wax ne ndab lu nekk la fa nekk moom moo fay seet comme xam-xam lañ am xam-xam lañ mën a jox ba mu jàng alxuraan te amuñ fay ka ñoom itam ñoo ci tànn jëm seet daara boo xam ne mën na jàngale te du fayeeku ko kër gu bu jëloon benn taalib rek day jeex ndax daanaka doo dem si daara joo xam ne da ko fekk lu mat mille personnes bëriwul fi waaw loolu moom ñu si xoo état di si xoo manque population bi yëpp xale yi jox leen ay xeetu bëri léeg-léeg dañuy am jafe sol bubbu ñoom gune yi bu gisee seen la bi di sol loolu lan lay def ci taalibe loolu maanaam euh, sax bu rëy la mu ngi mel ni comme koo xam ne nii bu baa doo xalaat yaay doo xalaat bàyyi parce que da lay leer ne fu mu toll ni man sama ma dafa mel ni maa ngi gis suma yaay ndax am nga yaay yoo xam ne ni jox na la yére am na yaay yoo xam ne ni jox na la nga lekk kon doo doo xalaat sa yaay ji nga xam ne nii moo la juróon am na xale yoo xam ne sax bu ñëwee boo leen laajee fii ak seen dëkk fan moo leen gënal dañ naan la fii moo leen di toppatoo mi ngi noonu dañuy jógee ko kawoon ñëw fi ci Kaolack dem ci yeneen i gox mouvement ànd defar suñu réew ñoom it jàppalante nañu ak askan wi ci weeru koor gi ca gox bi di Boustane Cas nag ak Casaville jaaree nañ fa rek maye ay ndogu waaye itam woonu ñu itam ñi nga xam ne rek ñooy seen ay leader ngir rek ñu cëral li diggé yi nga xam ne rek diggé nañ ko ci kanam askan wi woo itam ñi nga xam ne ñoom ñooy secteur privé bi ak opérateur économique yi ngir rek ñu jàppalanteeg nguurub Sunugal Mbaye ko ci micro Cheikh Ababacar Dieng. li waral ndaje bi mouvement bi ñoo tok xalaat ne dañ nekk ci weeru koor ñu ne dañ def marmite bi cœur def ay ndogu partagé ko population bi nga xamanteni tay ñun ñi nga xamne ne dañuy animé ay mouvement nekk ci ay parti politique à chaque fois que de besoin buñ joggé ñew ci population bi dañuy wax ak ñom ñom ñu ñew bàyyi seen soxla and ak ñun ñun ñu ne nañ xol la nga xamanteni suñu borom mu ngi koy wërsëgalee ñu ñew def benn ndogu partagé ko ak ñi nga xam dañoo dëkk ak ñom di partagé lépp ñi nga xam tu len laalé daf ñi laal tu ñu laalé da leen di laal ñu ñew jël suñu doole dajale ko ñun dañuy def ndogu partagé ko ak ñom mais aussi xamal ne mouvement ànd defar suñu réew ñooy def ay ndogu ci weeru koor bi partagé ko ak population bi nga xamante ne ñoo dëkk tey ci Kasnack ci Kastaville ak ci Boustane pour que au moins ñu xam ne mouvement ànd defar suñu réew du toog rek xaar ba élection jot muy ñëw di dagaan seeni kàddu mais lépp lu xew dina ñëw def ci loxoom ànd ak ñoom lam yor ñu bokk ko ak ñoom donc loolu moo waral jotaay bi tey mais ñuy profité aussi jotaay bi puisque dañ nekk ci parti politique di ànd ak madame le maire Mariama Sarr ñu di ànd ak le président de la république de jeunes organiser ay forum wo conseil communal ak conseil départemental jeunesse yëpp ñu ñëw ku ci nekk wax li nga xalaat pour que jeunesse bi am ay xey jeunesse bi am ay financement ñun ñuy bëgg lancer appel ci leader yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi au niveau national comme local président li nga xamanteni ni nako ñu accompagner ko ci tay ñi nga xamanteni aussi ñoo nekk ci au niveau de Kaolack CRD yi passé ñu joxe ci ay engagement ñu leen di ñaan à ce que engagement yu ñu joxoon ci kanamu askan wi ñu fexé ba respecter engagement yooyu di ñaan aussi madame le maire Mariama Sar ak ñi mu àndal ñu accompagner jeunesse bi ñi ngi ci mais gëna ñaax ñu gëna redoubler d'efforts gëna a vraiment li ñuy def aussi ñu lancer un appel à l'endroit du président de la république à l'occurrence monsieur Macky Sall pour que projet yi mu nekk lu effectif mu bañ nekk lo xamné ni aussi dañ koy wax rek te du nekk lo xamné dafa effectif président def nañ lu ëpp quatre emplois dig nañu lu ëpp loolu gëm nañ ne dina ko def mais secteur privé bi ak opérateur économique yi ñom ñu jóg aussi accompagner président de la république xamné ci réew mi lañ bok te aussi li engagé Macky Sall da leen engagé. ñom ndawi APR yi ba tey jaaree nañ fa rek di wo képp ko xamné ne rek njiitu réew mi Macky Sall jox na la fi ndombol tank ngir nga di deglouante ak ñom ndaw ñi waye itam jox leen cër bañu ñu yellool ndax sonu nañu laata ñu fipp seeni kaddu ci micro Cheikh babacar Dieng. may tuddu Cheikh Oumar Ba jeune responsable APR fi ci commune kaoula li ci dess rek Cheikh Babacar moy damay lancer wat appel ñi nga xamanteni ni son excellent président Macky Sall jox na leen ay ndombal tank ñu dëkk fi kaoula nañ gëna ubbi seen téléphone ubbi seen kër yi recevoir la jeunesse surtout ça man dama koy faral di wax fuma nek ñi nga xamanteni président jox na leen ndombal tànk nañu wat xel jeunesse bi nga xamanteni ñom ñoo nek jeunesse kaoula nañ ubbi seen téléphone ubbi seen kër yi recevoir nit ñi surtout jeunes yi nga xamanteni dañu dox ci développement di dox ci social nañ jappalé nit ñi président chaque jour mu lancer leen lu mel non mais bu fekkee ni président bu soxla nit ñi ñepp jog surtout ñun ndaw ñi nga xamanteni ñu ñoko nekkal fi ci kawla ñun ñoo dugg ci ruqruqaat yi dugg ci nit ñi sétal ko nit ñi ba nit ñi jox ko li nga xamanteni mom la soxla kon au retour ñun suñ soxla ñi nga xamanteni moy leader yoy war nañ ubbi seen bunti ba jaamu yalla mëna a wu ci li nga xamanteni président dénk na leen mais li gëna doy war ci kawla mo nekk da ngay gis ko xamanteni bu jotee day dugg ci bir askan bi wax ak ñom mais bu démé ba am lim bëggon tay ji pour nit ñi jote ci mom problème la té lolu ndax président Macky Macky Sall la ndax askan yu Kaolack la te loolu lañ ne dafa doy ndax réel politique moo am fu mu toll ni ci Sénégal la jeunesse il faut ñu joxaat leen considération boo xamante ne moom lañ leen war a jox ci déglu leen ci joxe leen ay accompagnant yi nga xamante ni ñoom lañ war a def ci société bi ba nga xamante ni ëllëg buñ soxlaa mu mun a yomb ci ñoom mais mënuñ comprendre tey ji yow boo soxlaa ngay jege askan wi soo demee ba am li nga bëgg nga sori askan heure soxla askan ñu am fulla ak fayda lañ su dinañ te su président Macky Sall mais lañ te war nañ xel bu baax ngi ko ba mouvement bi ñuy wax suñu réew day ndogu lañ organiser mouvement ànd defar suñu réew organiser ko ñu ànd seeg jeune leader Mbaye Sokoma ku nekk xam liggéeyam bi muy def ci kaw Kaolack donc ñu ne woon comme saa bu ñuy jug dañuy ànd ak ndaw yi bu weeru koor bi jotee war nañ leen a mën a wan suñu bopp def ci weeru jaamu yàlla ñu war cee dimbale jaam ñi loolu moo ñu taxoon a dugg waaw li waaj nañ ay sandwich waaj nañ ay bisaab kanet yaa ngi fi waaj nañ ay ndox et tout ça ñëpp tàndarma yi lépp loo xamante ne dagan na rek pour ñu def ko dimbalee ci jaamu yàlla yi ñu ngi koy def yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM, Aprendiz.com. ñu ñëw ak ci pàcc bu ñu jagleel weeru koor gi dañu koy dalal rek moom oustaz Mohamed Sow tey ji nag li ñuy waxtaanee bokk na ci rek njub ak ragal yàlla ci boo wéetee ak boo wéete di ko oustaz Mohamed Sow. laa shakka ne yow mi jullit bi woor boo duggoon sa biir ne kenn nekku fa frigo baa ngi fa xeetu lekk yu bari mu nga fa xeetu naan yu bari mu nga fa nga mën a naan ba màndi mën a lekk ba suur te benn doomu aadama du xam loolee waaye defoo bi wa jalla moom mi tax nga woor te xam ne moom borom bi dara wumpuk ko kon soo génnee ci koor googee li ngay jëlee ci koor gi mooy taqwa taqwa mooy ragal yàlla boo demee ba tiim alal boo xam ne moomoo ko nga yéeg ne ne bi nga xam ne azza jalla moom nga saaw moonteloon ci koor ga ba nangu woo naan ngir gëm ne yàlla mu ngi lay gis boo demee ba tiim alal boo xam ne moomoo ko itam nga gëm ne yàlla mi la daan tiim ci koor gi ba xam li ngay def te nga ñàkkoon naan pour sóor ko nga sóor ne borom bi azza wa noonu la tiimee ci lii nga tiim te nar koo jël te yëg ni yàlla mi nga xam ne moo ba génn ci war a mën a wéet naan sàngara nga war a mën a wéet tux loo xam ne luñ teral la wala lu xaraam mooy yàmba ak yi ni mel a wéet mën a mooy sa borom bi azza wa jal moo xam mooy njaalu la maa ngi ci aju wala càcc nga yëg ni ne borom mi nga xam ne moo la aaya woon naan ci weeru koor ba nga mënoon naan kenn du la gis nga ñàkk naan ngir sóor borom boobee nga yëg ne borom borom bi la tere woon naan ci weeru koor gi moo la tere yii ni nga ko sóore woon ci weeru koor gi nga sóore ko ci yi nii nga tiim loolu jural la ab njub ak ragal yàlla ak bàyyi ko xel loolu tax borom bi ne la'allakum tattaquun ndax ngeen jëlee ci ragal yàlla sa dañu koy dalal mom bax jop mu ñew ak ñun ci koru gay molum koru gay molum o haj Ibrahim gay ñoo ngi ci worog wor wacc DG kat worogul ben bay daldi wacc naka mu xam ko naka xolam seddati fu ko way seen ñe ngay seen sama gay sama gay ah kaay leen kaay leen tey lay may journée bi off la off ne ñoo ngi tollu ci wor wacc o DG projet kontaan la def tey jile oo ay liggéeykatam lépp ngir berndeel leen boole ko ñu daal di bëggee ne léegi koor gi jeex ñoom Libaas Mbay Cheikh Diagne ànd seeg Lamine Assane Cissé mu ndaw warate woor wàcc woor wàcc woor wàcc woor wàcc naka mu jógee fa rek jubal commercial fekk fa soxna yi ñoom sa fi joor waa tata Sow de lu muy def ci géew bi teel leen ma ko laataa ma koy ñàkk Eh, Alaaji Omar Cissé ndeke du xëy yow seetal rekk la man o DG xolam seddati na ne moo ngi ne ngéecc ngir koor gi jeex donte weer gu yiw la waaye ci moom tiis la ne ay xaritam la baax lekk ak naan rawatina ndekkeek ceebu midi o DG lu nu mel tax na woor wàcce gi féexal na xolam wàññee na dangar gi xumbal na rojo bi wàccee na rido yi bañ gis xar kanam yi ndeke lamin buy baaral wax ji tànk yi bar na o ndey faatu siise moo ma ci gën bett ndeke nii la tànk yi woowee fee buur géwél ci la dal di dikk olo oh, jubaay ma lu mel nii boo koy oote man mii di buur géwél dama ko war fekk li ñuy ut sa koor gi yàlla ba ko am bi corona bi ñëwee ba léegi ñun géwél ñi yënguwuñu occasion bi mënoon nga ñu ci woo o DG xool baa ngi gundaandaat moo ngi siñ di ree rek ndeke du administré rek la man tey du bésub ñaxtu ci la buux buur géwél o DG mënoon naa ñàkk fecc jamonoy war ga DG duggee ci géew bi loxo càmmoñam ca jëba ñaari tànkam di yëngu <laughs> maamaarooti yëf ya rëcc coono alaw tekku ko berndeel na ay liggéeykatam lépp dolli leen suukaru koor ku ne dellu këram moom ca la toog ci suuf rojo bi te xëxët rek fa sonn o DG mënatu ko muñ ca la daldi ne gërëb daldi xëm gaañi laal laal DG na nemm ñu tàmbali di yuuxu ina ndox bi ina ndox bi ca la jubale robine ba fekk mu tëj mu yootu ndoxu póotit ba nara ximali DG xaaj Ibrahim seen na ko muy dikk ca la daldi ŋaaŋ laata muy tepp biir ba fees tepp xabaar yi bitim réew xibaaru bitim réew Cheikh Tidiane Sarr yaay Europe lan benn ci man réew lan koy dooree. dañ koy dooree ci réew mi ñuy wax Mali ak këf gi nga xam ne daal euh, jamono ji def nañ ko ko journaliste bi ñuy wax Olivier Dubois Olivier Dubois di ab euh, journaliste boo xam ne mu ngi dëkk foofu la ci réew mi ñuy wax France këfam googu nag nga xam ne jamono ji kenn xamul fan lañ ko yóbbu daal dëggal nañ ko ci benn vidéo boo xam ne ñu ko posté daal moo di groupe de soutien bi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu la ci réew mi ñuy wax Mali ñu leen wax groupe de soutien à l'islam et au musulmans en arabe ñu fàttali rek ne soxna ne xadi moom Olivier moom mu di ab français doon ab journaliste bu ràññeeku daal nekk na doon liggéey ci quotidien bi ñu doon wax daal euh, Libération ñetti ay bis a ngi nii daal kenn euh, gisu ko foofu la ca réew ma laata ñuy amal ab vidéo boo xam ne daal ñu ngi dëggal ne dañ ko teg loxo bu ñu sukkandikoo ci xabaar yi nga xam ne fësal nañ ko jaarale ko ci service Afrique RFI bu nekk ci réew ma. xabaar bitim réew Gabon lu mu bëggaat moo di dellu siwaat ci kuréel gi nga xam ne mooy saytu lépp loo xam ne jëm na ci doxalin gu sell ak lépp loo xam ne mu ngi jaar ci yoon bu baax a baax ñu koy wax itee initiative pour la transparence des industries extractives Gabon ñu génne woon ko ci kuréel gu nu mel ci atum 2013 gannaaw bi nga xam ne daal lépp loo xam ne yoonaloon na ko daal moom du ko daan respecté ay rapport yoo xam ne nee nañ daal amul benn lu leer lu ci amoon ba tax daal ñu génne woon ko ci kuréel googu wante jamono ji ak doxalinu àdduna bi daal lu mu bëggaat moo di ñëwaat ci biir kuréel googu nga xam ne dinay mën a saytu bu baax baax ay mbiram ñu sukkandikoo ci ay xabaar ñu ne daal ñu ngi ciy dox ay tànk yoo xam ne daal boobu moytul feeg njeexitalu atum 2021 bi danañ leen mën a dugalaat ci biir kuréel gi ñuy wax ITIE. xabaar yi wax ci tolluwaay alam bi ak ndogal bu bees bi nga xam ne namm na ko cee jël moom Angela Merkel di chancelière bu réew mi ñu wax almaan lu mu daal moo di ñu gën bàyyi xel. wala sax ñu gën a ful laal bu baax a baax lépp loo xam ne jëm na ci wàllum taxawaayu alam bi rawatina bàyyi xel ñii nga xam ne ñoom la wax génération future bi soxna Ndeye Khady li mu bëgg daal moo di alam bi ak programme yiñ ci wax ak sommet yiñ ci amal ak yu nu mel daal ñu gën cee bàyyi ñii nga xam ne ñoom la ñu wooyee génération future muy ndaw ëllëg yi jaare la ko ci Angela Merkel bi nga xam ne yëkkati na kàddu yu nu mel daal euh, foofu la ca réew mi ñu wax Allemagne ngir daal ñu xoolaat beneen politique boo xam dimbale bu baax a baax askan wi lépp lo xamné jëm na ci walum climat bi ñom nañ ci bàyyi xel ñi ñi wax génération future bi. xabaar bitim rew xibaaru tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ndeye Khady maa ngi lay fay te nuyu ma ko auditeurs bi nga xamante ni ña nga woon ca compétition africaine yi nag am nañu ay jongante yoo xamante ni ay match en retard la Teungueth FC dina daal tey ak Dakar Sacré-Cœur jëm ci juróom-ñetteelu bëccëg bi ca Ngalandou Diouf AS Pikine dina daal ak Jaraaf bu Dakar ca Amadou Barry ñu des ba léegi ci football demi-finale retour Ligue des champions démb Chelsea dafa daan Real Madrid te ñaari bal ci dara final ren bi nag anglaise lay doon ci diggante Chelsea ak Man City tey bu juróom-ñaari waxtu jotee demi final retour Ligue Europa lay doon AS Roma laa lay Man United ca ale ba nag anglais yi ñoo dooroon juróom-benn bal ci ñaar beneen jogante bi nag Arsenal Villarreal lay doon ca ale ba nag espagnol yi ñoo amoon ndam ñaari bal ci benn njiitu CAF di Patrice Motsepe nag moom def na ab don boo xamante ni ni toll quatre-vingt-six di ab championnat panafricain interscolaire dina door nag ci li nga xamante moom mooy déggoo gu dox ci diggante CAF ak FIFA tournoi de qualification yi nag des na ko amal ci diggante weeru mai ak weeru décembre atum fédération sud africaine bu football nag daal dinay wax ni kii di Hugo Broos nag moom la ñu mu nekk sélectionneur bu yees bu Bafana Bafana yi nag kii di Hugo Boris nag am na juróom-benn fukki at juróom-ñeent nag moo yi ci weerum juin gi ñu dëgmal lay doon championnat du monde 2021 fédération mondiale bu jeu de dame nak des na ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin ba fukki fan ak juróom ci weeru sulet fofu ca Tallinn ca Estonie confédération africaine bu yore wàllum jeu de dame nak daal dinay tànn juróom benn jour yu bàyyi ko ci juróomi dëkk Sénégal Mali Cameroun Côte d'Ivoire ak RDC ñu dem ca Bulgarie fofu nak club bi di Ludo Goretz nak daal dinay jël fukkeelu titre championnat bu Bulgarie nak ginnaaw bi nga xamante ni doomu Sénégal baa nga fa di Stéphane Badji nag ñoom nag daal nañ battre ab boo xamante ne CSKA Sofia moo ko téye woon ndax club boobu jël na ko juróom-ñeenti yoon yu tegloo jeexalee ko ak lamb ginnaaw bi nga xamante ne ñooy amateurs yi nag ak axlu lamb ñu ngi doon xaar combat bi dox ci diggante guy gi ak rëg-rëg mujj nañu ko amal nag dëggal ko ci makkaanu CNC bi nag ñi ko tëggal nag di waa IGFM ñoom nag officialisé nañ li nga xamante ni moom mooy combat guy gi ak rëg-rëg ci teewaayu ñaari ménagères yu mbër yi ma la ñaanale kandaa yu jàmm li ma ko doon fas yi li ci yëpp nag woyafal moo tax ma mën di ko taal kaay leen ma won leen kaay leen asalaamaaleykum. soxna si ñii dañoo soxla woon ay leeral ci woyofal. ak woyofal li ngay jëfandikoo ci courant mooy li nga mën a fay li nga soxla te it li nga jënd ci courant buy waaj a jeex nga yëg ko agencé na Senelec boo dem fekk ko fa. ak compteur woyofal. woyofal leen seen lakkum courant. yomb na woyof na te wóor na. moo leen di may li ci yéene kaay yi. li ci yéenekaay yi El Hadji Seydina Omar Cissé lañ ci àndal an bikum benn million doomu adama ñoo nekk ci fichier électoral bi ci anam gu jaarul yoon allah ñu ne déete waayati juróomi téeméeri junne doomu aadama seen carte d'identité ya xamut barab yañ war a wotee ku jege opposition bi ñoo wax li ni mel jaare ko ci càmbar bi ñu doon càmbar fichier électoral bi réew mi yéene kaay yeggee ñu ko ba pare na kon fi mu toll nii wàllu foro tappale moo ca xam direct news ne ku jegi kay ñaawlu nañu li xam ci kayit yi ñu war a lakk rapport expert yi bàyyi ko bitim réew xamal ci yëf yi li ci jaarut yoon ñu ne fa bari yow seetal juróom-ñaar ci ay mbir yoo xam ne jaarut yoon xel nanguwut ko ñoom ko jëgi ñoo ko wane wal fajiri yéene kaay ne moo taxit neneen fichier bi baaxut dàq nañ ko li ni mel nag di histoire bu yàgg Sénégal laas ak le quotidien ne ku jëgi weddi nañu expert yi ba pare dàq fichier bi l'observateur ne mbaadu ndëgg sërëxu boycott ñàkk bokk ci wote yi fa lañ nar a mujj ñoom ku jëgi critique yéene kaay ne fi mu toll bi ñu war wote moom lañ xamagut enquête enquête yéen a mel ni ku naan kujje gi yéen toog leen foofu di wax rek gis ngeen benn bokk yaakaar Macky ak parti koy jàppale ñooñu ñu ngi waajal dem ci élection de baax na dëkkee leen wax bañ bukki leen rek <laughs> yow seetal maître Ousmane Seye nee na ñun benn bokk yaakaar buñ nekkee benn kenn mënul ñoo gañee maire yëpp Sénégal laa wax El Hadji Ibrahima Mbow ne waaye parti bu nekkit nag fu war a xam lu mu war a taxawee leer lanen lu leer ba yegg ci nañu ja moy ne ki fi nekkon njital hôpital magget Lo ba ci Linguère narna am problème de procureur fa ubbi ab information judiciaire top ko ci walu yoon lepp ndax ñenti xalé ya faatu won ci lak ga xamoon ci hôpital ba li yene kay mo ñu ko xamal l'observateur nako fa lay wax film ba na yëf tedde ya tëddee yéeme na woon trop njital hôpital ba nak ne làmmiñ du lekk morom wa ñoru fa lay di xamal ne gis ngeen hôpital bu 2017 ba legi djouf sar musul ñu faa ben fajj kat te man bëss bi hôpital ba di lakk booba ma nga won Jurbel ci sama ñaarel ba leer laneen lu leer ba yegg ca naan ja mooy ne Madiambal Diagne tey lay jàkkaarloo ak attekat bi attekat bi ñuy wax Souleymane Teliko moo ko yóbbu ci yoon ndax fa ko waxal loo xam ne xamut Les Échos yéen a moo ñu ko xamal laas yéen a kaay ñu xamal keneen ku ñu yóbbu ci yoon mooy maire bu Patte d'Oie Banda Diop wàllu faux usage de faux moom lañ koy toppee ñay toppee dàq gu jaarut yoon ca ka nekkoon seen patron di Bougane Gueye Dany mooy ay liggéeykat yu nekkoon ca seen TV ak ñoom seen Les Échos leen dàqee ñoom liggéeykat ya yàkk neen Bougane Gueye Dany kàddu kàddu yoo xam ne weñ wu ci dal dee de nee nañ du dara tous xarxaram bi mu wane sénégalais yi ak jikkoom dëgg du benn de weer nañ ko ni géej nag ki nar a weer ay ministre nag mooy Macky Sall xëyum ndaw ñi emploi des jeunes nee na leen acca ku nekk bay ci sa waar lii yéene kaay moo ñu ko xamal la mu moom le quotidien yéene kaay mooy mairie bu Kaffrine xeex ba nar naa métti de diggante Ablaye Saw ak Ablaye Wilane ku jégu métti ca lañ nekk ba tey yéene kaay bi wax Dark Brestow nekk njiital këru liggéeykaay gi ñu wax ne fa ñoo yoral Sénégal ay milliards yu ko tey ci ay waxu caaxaan-caaxaan kon du fay libération moom di ñu xamal ne ki fi nekkoon maire ca caajaay sàndarma ya fañ ko wër ndombo de ba tëj ko ca kaso ga yaaw seetal fa ñoo wax na daal moom Abdoulaye Diop fa doon sàcc ay carte d'identité jàmbur ngir di ca am ay terrain ba pare jaayaat ko te boroom carte d'identité yi duñ ko yëg la mu yëg moom Guy Marius Sagna mooy doxalin bu jaarut yoon ci wàllu suuf ca ñaaning lenn ca askan wa fañ leen a jaay doole mu demoon fa nag ngir xam na yëf ya tëddee waaye dootu ko ñaareel de mooy meeru Malicounda moo yónnee ay nervi ñu rëy ta ponkal ñu jàpp gi Mari Sagna démb fañ koo xëpp suuf fañ koo méttital fa ñoo xotti yëre ya di ko wax wax ju ñaaw ba pare dàqe jëlee ko fa vox populi moo ñu ko xamal gi Mari Sagna nag ci les écoles yéen a kaay nee na maire bu Malicounda moo ko def de ñaawlu na ko trop nag bi mu ñibbisee sax démb Dakar fañ koo mujj yóbbu hôpital moom gi Mari Sagna ba sampal ko perfusion sowetaas nee na nag képp kuñ noot Sénégal jaay la doole su ko yëgee dana ca taxaw wax ci lam ca war a wax même bu ci bakkanam bi des sax sénégalais jaral nañ ko ko libération moom it di ñu na ca diiwaanu ñooro xab xalalu lu góor lu xam juróom-ñaari at Moustapha Ndaw fa lapp ca ndox ma taa mujj faatu ñàkk ba kanam ñeneen ñu ñàkk seen bakkan ca diiwaanu Sibassor Kaolack Ndangaan ci ab accident ñetti doomu aadama ñoo faatu ca accident ba ca saasa ni ki démb critique yéen a ñu ko xamal ba tey ca diiwaanu Kaolack Ndangaan l'observateur moo ñu xamal ne seen cour d'appel ba ëtt attekaay ba malaise baa ngay continuer de yaw seetal mbiru xàttee diggante Ali ak Banque Atlantique jur na coow de ba tey tey di ñu xam le ak sayidina mulai lay mo ñetti naafila ya ci ñetti barab yu wuté ci genn guddi gad yaram combat Balla Gaye 2 Gris Bordeaux Gaston Mbengue taxawal nako gambi nak lañ koy bëree sunu lamb yene kay ñuko xamal stade yene kay di ñu xamal ne Ligue des champions dembu dembu dal dembu dal match dembu bi est-ce que jarna wax sax ta amako tepp xara rek ma wax ko pexé amut dembu dal Chelsea moja japp Real Madrid di ko mbukki di ko mbukki di ko mbukki di ko mbukki di ko mbukki ba muy bëgg ñaari bal dal ci dara tic tac carax carax yéete Chelsea ñooy saay-saay te seen occasion yëpp ñu ko dugaloon konoon juróom benn la ñuy wax de wala juróom-ñaar Edouard Mendy mel ni jinne ci kaa yi rek foo làqabal ba mu làqarti ko génne ko aj ko waa ma ne yéen noonu Real yi seen xol sedd na démb rawatina supporters yi Barça yi fa mel ni rek ñoo doon football démb te seen yoon nekku ci ñoom ñun supporters Real yi nag nañ muñ rek lii mooy sport Chelsea fa ñoo mën mbuqi lépp nag woyafal moo tax ma mën di ko taal kaay leen ma won leen kaay leen asalaamaaleykum soxna si ñii dañoo soxla woon ay leeral ci woyafal ak woyofal li ngay jëfandikoo ci courant mooy li nga mën a fay li nga soxla te it li nga jënd ci courant buy waaj a jeex nga yëg ko agence Senelec boo dem fekk ko fa. ak compteur woyofal woyofal leen seen lakkum courant yomb na woyof na te wóor na. ñoo leen doon may li ci yéen kaay yi. jaajëfal leen mbokk yi ci teewlu bi fàttali leen li gënoon a fës ci bile jotaay xibaar suliwante mboot yaa ngay gën a am doole ci euh, dossier wu Satar tuumalante ci ay millions waaye itam euh, porté wante plainte moom moo ca xew jamono ji Amadou Diatta Fall ma jiite woon union régionale CNTS te ñu tuumaloon ko ca moom nag seetal na boppam ba mu set wecc ba noppi daal di tilimal mandataire ba di Sidibé dégg ngeen ci Cheikh Ababacar Dieng wàllu politique ndaw ya faree ci APR ku ma yiwul daañu fipp bu fekkee ni seen i ay leader jox ñu leen gëdd ba ñu yellool ña ngi leen doon artoog leen dànkaafu ca ba ñu mayee ndogu ñoom waa ànd defar suñu biir xibaar yi ñeenti ci a seen biir judiciaire ak soxna Ndeye Fatou Cissé waxtaanu ko àndoon nañ ceeg Oustaz Mohamed Sow ca bitim réew fekki nañ fa Cheikh Tidiane Sarr tàggat yaram àndoon nañ ceeg Serigne Moussa Kane yéeglekaay yi xëyee tey ji àndoon nañ ceeg El Hadji Seydina Omar Cissé mbokk yi jaajëfal leen ci ànd beeg la référence internationale ñaanal leen kenn dala kooku jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen Le journal Ndeye Khady Sadio.